sëriñ tuuba seexul xaddiim ñu wax leen tuuti rek ci sababub tukki bi ginnaaw bu mu sancee dëkk bii di daaru salaam ci atum 1886 ñaari at ginnaaw bi la sanc nag dëkkam bu sell bii di tuuba ci atum 1888 ab diir nag la fa def sanc nag quartier boobu di daarul xuddoos jàkka jooju fi nekk di jàkkay sëriñ mbàkke madina ji foofu la daa duggal lii di xalwa yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam feeñu na ko fa am na tukki bu sori te yàgg boo war a dem waaye nag am na ay gàllankoor yu ci nekk ku baax ki xaadim rasool mi ngi xamal yonent bi ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa di ko wax ne de ruu ak bakkan bakkan bi de laa munul dara waaye bis bu ñu ma ko lu yan bi diis diis wala mu metti jom ji moom ak kàttan gi àttan na ko ba tey ngeen gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam di xamal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne da am na gaa yu bari yu la fi jiitu ci wàllu ay góor yàlla waaye lii nga wax de lañ waxoon waaye bi yan bi mettee ci seen kaw mujj nañ saalik seexul xaddim di wax ngeen gi mbindéef rek ba nëgëni daal ruugi daal la munul dara waaye jom ji ak kàttan gi àttan na ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di yokk ca wax wax ja di ko wax ne nag ba tey am na baneen gàllankoor bu ci nekk ndax kat sa nijaay ji di sëriñ bu soobe bu su fieg mi ngi fi yan bi moom du mën a am ndax kat suñ boroom tabaaraka wa taala weg na ko te rus na ko te lépp lu ko ñaan dana ko ko may ñaareel bi nag mooy sa dëkk bu sell bii nga nekkitim di tuubaa fieg yaa ngi fi benn natt du la fi mën a dal ndax aar nga ko te yiir nga ko te suñu boroom kat du la fi teg mukk ab natt loolu lépp nag tax na sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim génn ci dëkk bi di Tuubaa dem ci Jolof sanc fa ab dëkk bu ñuy wax Mbàkke Baari Jolof mu nekk fa ci diirub lu tolloog ñeenti weer yi suñu boroom ci biir ñeenti weer yooyu nag mag ñu bari dégg nañ ne ma nga fa rawatina lii di tubaab bi tubaab bi nag yónni woon na ndaw ginnaaw bu mu yégée ne ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim jóge na Tuubaa mi ngi Jolof ci wetu chef de bii di sàmba lawbe penda loola itam xawoon naa jaaxal tubaab bi lu waral loolu kii di maam abduloo la tubaab bi yónni woon ngir mu coytul ko sëriñ bi ba xam ci lan la nekk maam abduloo ñëwoon na seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi mu delloo ci lii di gouverneur bi xamal na ko ne kee ma fekk nee daal mbooloo mu bari wër ko ñii yor ay ngànnaay ñii toog di déglu lu dul ndigalam dalul sama xel te fekkoon na nag lu ko jiitu nag ci mois de avril ci yónnee woon na ay bataaxal ci njàmbur bawal ngir itam ñu mën a am ay renseignement ci lan la cheikh bi di def ci tund woowu ñu teg ci ñaari weer muy le 27 juin 1889 lettre boobu bi ko tubaab bi laajee ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ma nga leen di xamal ni moom gisutub lettre déggutub lettre waaye saa buñ bëggee mu tontu leen dana leen tontu tubaab bi nag wéy na nag di ñaaw njort ci ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim waaye ba nëgëni rek amagul lenn lu sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax gisu ko muy doxalee ni sëriñ si ko jiitu doon doxalee ba tey itam tubaab bi gisul seexul xaddiim di doxalee ni fi buur yi daa doxalee kon nag ba nëga ni itam ñaaw njort gi mi ngi ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waaye daal xam na ne wuutee naag ñim doon xeexal ciw doxaliin ñaaw njort gi mi ngi wéy di am ci tubaab bi digganteem ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu teg ci juróom benni at muy fukki fan ci mois de juillet ci atum 1895 administrateur bii di Leclerc yónni woon na ab ab lettre directeur des affaires politiques ci ku baax ki sëriñ Tuuba seexul xaddiim bisu benn fan ci mois de juillet tombeeg muy bisu tamxarit directeur des affaires politiques bi mu eggee ci bis boobu fekk na ñu bari wër ku baax ki sëriñ Tuuba seexul xaddiim bi mu ñibbisee di wax le clerc mi ngi koy wax ni daal mbooloo ma ma fa fekk takk na lool waaye nag la ñuy wax daal ba nëgë ni mënumaa xam lii la wala laa bis bii nag fa la fekk cheikh dul faadal mbakki mi ñaareelu xalifa xaadim rasul bisub keroog maam abdullo ko lañ yónni woon ngir mu xool si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim naka la nekke foofu ci Mbàkke Baari Jolof bisub keroog itam dafa tombe kii di Sàmba Lawbe ñëwoon fa ak ngan boole koog nag am na yeneen magi murit yoo xam ne nii itam ñëwoon nañ fa doon ziyaare si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kon bisub keroog xumb na lool ci Mbàkke Baari jolo bi maam Abduloo delluwaatee Ndar loolu la wax tubaab bi boole koog di ca dollil na ko nag gaa yi ma gis ñu wër ko ay ngàndaay lañ yor nañ teewlu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mu nettali ñu ko am fa foofu wakki bari googu yi am na fa yenti weer la fa am képp ndax la atte liggéey bu tubaab bi ñu jaxase ko ba ñu ñu njël si ko fa fekk na moom boobu boobu loolu na siiw dem daal moom boobu moom dana siiw da jaxase ko rek diggante moom tubaab bi ñoo ko jaxase woon ko ne ko kee doo doon ni ñi fi ñi ko na moom dem rek dem rek la na maa teew daal mu fu mu ci toog na fa am bis ku ñëw ku ñëw fa fekk dég-dég boobu yi moo tax mu dikk dég-dégu doole ji yóbbu yóbbu foofee ak mbooloo mu fa yóbbu waaje nag mu àddu nag fekk boobu moo ñël benn seeti ci booba ci ko ci moom mu mu bon daal naa ko naa ko seet ko ci ñëw wax ma lu fa ne dem dem dikk yàlla tibis bu mu ñëwee séquence bu sambalo bi boobu mooy mooy bët ba Jolof bu ñu financé ma bu financé ci suba sambalo bi bay ko ca Jolof ànd ak Jolof gépp ab xal xal lañu xam nga bu jógee mbooloo mi bari bari ak ci naa di góor ak ñu lépp maa ngi jàll moom man moom dikkee Thierno Thierno sëñ Ibrahima ci daal muuti moo nekkoon daal muuti fekk boobu moo fa ne mooy mooy fi fi mu fi mu la gan ñiy jaar na moo ko na na na tekki na tekki te ñëw nu waxtaan laaj ko ne boo xam ne lu yoonam mu ne ko dara dafa dikk rek fekk ma fi ma dikk di ko nuyu si rek di ko sargal ma sama gana yenn fa ñu ganale ko gan goo xam ne kenn su ko gis ci ngoon ci teg ko mu gont di dem rek man mii daan na wax maam bi wax maam sëñ maam Fall Ñang ma ñu ànd nag maa ko jëloon fi yëpp moom it ñu àndal daanaka mu ëppale waa ji am àndal sax ci ci bari ci tegu saa yi su da ñëw moom it fanaan si sëñ bi ñëw moom dal ko dal bu mel ni bu mu dalaloon kale moom bi moom kon moom moom loo ngi si ko déglu sëñ bi yéen yi sama maam jooju mu dem waaye dina daal fii xëyee na nag na booba yi yi mu gis fii moom la xalaw moom lay wax la ko rendre compte di ko wax mbooloo mu bari maag jataay baag ñam fa fekk ndax bu leen fàtte ne ñi àndoon nag Sàmba Lawbe kat ay ngànnaay lañ yoroon te moom dafa jortoon ne ñooñu itim armeb sëriñ bi la kon nag tubaab bi wéy di gën a ñaaw njort ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ndax kat ñi mu yónni woon bi mu ñëwee liñ ko wax wax dalalul dara xelam kon tubaab bi na convoqué na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim waaye wuy siwut maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la yónni woon ca booba mu demal sëriñ bi ngir tontul ko boole ko nag maam abduloo di wéy di def ay pexeem ngir ñu jàpp ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak kii di sàmba lawbe lan moo tax nag mu bëgg ñu jàpp ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba nëgë ni kenn xamul lan la waaye rek saa su mi ci ay pexe ngir ñu teg loxo ku baax ki sëriñ tubaa seexul boobee moomu gane si woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim jiite itim tund wow di jolof ab tampon yàqu woon mu yóbbu woon ko ci dëkk boobu di ndar géej doon ko defarlu maam abduloo demoon na keroog fi ñu doon defare lii di tampon yi fekk na fa tampon yu baree bari yu yàqu waaye lépp rek bu fàtte ne daal mi ngi ci pexe yi ñu teg loxo sëriñ bi lan moo tax nag ba nëga ni ump na ku ne keroog bi mu eggee foofu bay wër tampon yi di laaj bañ na ko bii sàmba lawbe moo ko moom mu ko doon defarlu ngir ñu defaraatal ko ko maam Abdou defoon na aw këyit ci poosam këyit woowee nag jël na ko fexe na daal ba dóor ca lii di tampon ba mu marqué ca mu fab def ci poosam toog di waxtaan ba ñibbi jotee mu ñibbi keroog bi mu ñibbee la bindub lettre di wax gouverneur général bi man Samba Lawbe jiite tund wi di Jolof ak man sëriñ bu mag bii di ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moytuñu ñu ngi ci say tànk te danañ dal ci sa kaw am na nag ay buur yu la ko daa wax waaye ñoom laataa ñuy ñëw daw nañ waaye ñun nag du ñu ñooñu na nga xam ne daal saa su ne ñu ngi ci say tànk te danañ dal ci sa kaw loola la maam Abdoulo bindoon ca lettre ba adressé ko ki nga xam ne ni moom mooy gouverneur général ngir wax ne Samba Lawbe ak ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim ñoo ko bind lettre boobee nag mu jural ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim demu Gabon gi ñu teewlu Cheikh dul faadal ba tey mu nett li ñu naka la maam Abdoulo def ba bindub lettre ci tampon jàmbur. yóbbu ko ndax di ko defa waaw waaw maa fi wax na bu dikk foofee yi ko defaree. seen samp yu bëri ne fa. bi bii ana ko moom bii waaye ana ko moom bii ana ko moom bii waa ngi si bopp Samba Laobé. bii bii Samba Laobé borom boo jëlee moo ko doon defar la. waaw mais ko ma gis waaye ndax pare na mu ne ko pare na. bu koy kayit ngi fi yu bëri. fab fab ko de ko nii teg ko ci kayit boobu. sànni si kayit rek mais ne ci soxla. muy muy dem rek muy fexe ba. koy boole dañ koy boole ba ci suba ba ci suba sax daal bind benn lettre daal di wax ne man sama raw bi ci kay wala ko bind man sama raw bi maag sëñ Bamba yow borom ndar defaroo ñu ngi ñëw ci yow sama mag waxoon na la lu mel nii waaye su ko ne moom boobu dafa bëgg a daw mu dawaa woon la dikkal ba nga ko waxee ne ko bis sangam dara ñëw def nangam ci ci jàkkay yang-yang ja fekk na mat na ab diir bu sori daal defaru daal di rëy nagam daal koy seet ay seet daal di warlu ay ay baraay yu jeex lu ne ak ak sanqal sakk yenn seen yi daal di xëy dem rek bis bu nga xamee ne moo wax loolu nga ne ko ne ko bu dikkee naa la nangam wax wax ci ñanga bis boobee fekk na na ba yekk kon loolu itam xëy rek mm, ndar di di di xamaa si fekk mu ngi yaan si guddi dem fekk ko mu dee dem dem yëpp ana mu ne ko man sama de man du ma koo ko man man li ma la wax moom man moom mooy dikk maag ba man na ñëw si yow teewul waaw woon man nag wóolu ne noo ngi ñëw maa ma di bind lii ak signé def ko ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim di gën di am ay jafe-jafe digganteem ak tubaab bi ndax kat tubaab bi jotoon na renseignement bu koy wax ne ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim foofu mu nekk ci jolof mboolo mu bari ñu ngi koy wër saa su yor nañ lii di ngànnaay boole nag lettre bi nga xam ne nii jot na ko mu gën a garaawal situation bi ndax lettre bi maam abduloo ma ngi koy wax ne yow tubaab bi moytuñu man sàmba lawbere maag ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim saa su ne bay boo nga jor ne ñu ngi ci sa kaw loolee nag taxoon na tubaab bi ne la ba yandoor itam nag fitam dalul ndax dégg na doole ju ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim am foofu ci Jolof mu xëy suba woolu kii di maam Abduloo mi nga xam ne nii saa su ne bu lettre ñëwee moom moo koy jàng mu di ko xamal ne jot naa ay lettre yu takkoo takku maam Abduloo comme moo bind lettre ba moom moo koy jàng fa mu jaar ba bind ko rek fa lay jaar ba nettali ko di ko xamal ne lettre bii dee sëriñ Tuubaa ak kii di Sàmba Lawbe ñoom ñoo la ko bind ñi lay xamal ne yow bay boo nga fagaru su ne mën nañoo xëy dal ci sa kaw wala ñu gont sa kaw loolee nag bi ko tubaab bi déggee aw fitam dala tut ñu teewlu cheikh mamadul faadal mu nettali ñu keroog bi maam abduloo waree jàng lettre bi nga xam ne ni moom moo ko bind ci teewaayu gouverneur bi lan la wax gouverneur bi keroog bu ñu andee courrier ba fekk ci lettre lettre ko tam xotti ko dal li ñu woon nañ ma a jàng jàng ko ku ndar man sàmbalaw bi mag sëñ Bamba ak Jolof yëpp defaral dikkee wu ci sa kaw. loo ci xam na ah xam ci dara mi ngi rek leen li laa xam. jàpp jàppi ko rek jàppi ko rek fekk leen bala ñoo ñëw. jàpp jàppi jàppi leen ci xam. kii kii nga xam ne moom la moom la fa moom laa fi mu fekk ma ko nag. waaw kooku de mu leen njëkk rek ma sëñ bi rek. waaw ah, kooku ni ñu waxee nii kattan bàyyi rek ni mu mel def ngeen loolu des ko mën a. ma mën naa ko ma ne ma boolee. expérience yi. waaw dinaa ko mën a. waaw wax na ko ay si boobu dañu xaw a espèce yu bëri jiraaf njaamu rek wala wala seefi noon foofu yëpp dikk ñu ànd ak ñoom dikk ba jeewal mu bi laaj na maam Abdoulou lettre bi mu jàng lu ci pexe maam Abdoulou di ko xamal ne man de boo ma booleeg armée bi man na maa dem jëli ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim wala menn man mi dong mën naa koo jëli tubaab bi di ko xamal ne ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim dégg naa ne bari na doole de maam Abdoulou di ko wax ni loolu daal du ci dara man daal boo ma booleeg armée bi mën naa ko jëli waa binnoo nee ko maam abduloo boole koog lii di armée bi ngir ñu dem jëli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim biñ ñëwee nag ba ci dëkk boobu di jéewul la maam abduloo wax armée bi ñu toog foofu xaar ko fi mu dem mbàkke baari jolof jëli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mu ngi leen di wax ni benn sàndarma rek doy na ngir mu ànd ak moom jëli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñi ci des nag nañ toog foofu ci jéewul xaar ko fi keroog sax sàndarma ba maam abduloo ma ngi koy wax ni bul sol tëni solal yérey olof ndax nga yiw maam abduloo ak garde boobu di gendarme bi biñ egsee ci mbàkke baari jolof bisub keroog itam fa la fekk kii di cheikh dul faadal mbàkke ba tey nañ ko teewlu mu wax ñu bi maam abduloo ñëwee ba sëriñ tubaa seexul xaddim xam lan moo nekk tànki maam abduloo lam wax maam na ibrahima faati ànd ak benn sàndarma sol sol yére yére wolof ànd ak moom ñu ngi fanaan si weesu ab semestre la ñu fanaan si guddi ajuma la fan ci suuf sëñ Cerno Cerno na sëñ bi waa ji moo moo ñëwal si moo abdu dégg si na ko waa ku mu dikk ñu ko ne ko man de li de ku mu gëmewu ko ñu ko ay ca daal di defar ci bëccëg boobee ci bëccëg a ajuma bi dafa dajale wax ne mi bëgg yu bari yëpp maa ngi maa ngi taxaw ko def ci alximis joojee mu ko ko waxee ba set di ajjuma sëriñ tuuba seexul xaddim wax ko kii di maam ibraahima ibrahima yi di ko xamal ne maam abduloo mi kat nee na tubaab bi dama soxla kon nañ ma defaral samay bagage ndax damay wuy ji ñu yendoo ko defaral ay bagaasam bëccëgug ajjuma ba set di samedi ci fajar sëriñ tuuba seexul xaddim waree fa aw fasam ngir dem ñu teewlu cheikh dul faadal mbàkke mu netti li ñu samedi fukki fan ci mois d'août ci atum 1895 fajarug wax set googee nu seexul seexul xaddim jógee mbàkke baari jolof ngeen wax sax la yéen teel ñu daal wax yu sew sew nii sëñ bi génn ci jàkka ja takkal nañ ko fa sama war ba noppi mu woo ma maag sëñ Modou Moustapha ñun ñaar boo noo fa garab goo xam ne sax gudd gudd dañ ko gor léegi foofu lañ taxawal boobu fa fa taxawal fa lañ taxawal fas fa ñu ko di war dañuy war ñëw si wetam ñaan suñu dénk naa leen yàlla maa ngi dem. dénk naa leen yàlla maa ngi dem fan la seexul xaddiim jëm ndar géej wuy jit lii di tubaab bi ci convocation bu mu ko amal yoon wa nag nii la tëddee ginnaaw six heures di matin mu jóge Mbàkke Baari Jolof quatorze heures di waxtu tisbaar mi ngi ko fekk ci dëkk bu ñuy wax jéewul maam Abdoulo bi mu àndeek ñi doon jël si Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ba ci dëkk boobu di jéewul foofu la waxoon ne nañ ko bàyyeeg benn gendarme mu ànd ak moom muy xamal jëli ku baax ki wax armée bi itam nañ toqaar ko foofu kon 14 heures ci le 10 août 1895 def samedi foofu la seexul xaddim dajee gaañooñu ba ci gug 10 août googu mu yendoo di jeewal jeewal ba fa sëriñ tubaa seexul xaddim nag di egsi dafa tombeek nag mu tolloog waxtu tisbaar soo delloo nag ci mbindum cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul ci sukkandiku nag bu mu ci nett lépp sëriñ ma bànji bokkoon itam nag ci ndaw yi nga xam ne nii bisub keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddim di bàyyi bàyyikoo ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari Jolofa bokkoon na itam nag ci ñi nga xam ne ni àndoon nañoo ko baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ngir nag ñu yorle ko ay bagaasam ci woo nag gu ko tubaab bi woo sëriñ ma Bànji Njaay nag mi ngi wax nag ci mbindum mu dul Basiir Mbàkke di wax na nag bisub keroog mar wu mettee métti itam nag sonal na leen ci waxtu tiswaar woowu nag bi Seexul Xaadim nag bëggee jàpp dañoo séen nag lu ñuul lu gàtt nag jóge nag ci penk bi nag wut si leen ginnaaw bu ñëwee nag ba egsi ci ñoom la defal Seexul Xaadim nag mu jàpp nag ba noppi ginnaaw bu Seexul Xaadim jàppee ba noppi nag leen may ñoom itam nag ñu naan ndox mam yoroon nag mi ngi ko def nag ci lu mel ne ak mbuus te bi mu ñëwee nag waxut ak ñoom bi ñu noppee la leen wanaat ginnaaw nag di dem bisub kerew nag lii xew na foofu seexul xadim nag wéy des nag ci dëkk boobu nag di jéewal jéewal googu itam nag la fanaan guddi gaaw googu fukki fan ci mois de août ci atum 1895 fajorug dimanche fukki fan ak benn ci mois de août atum 1895 sëriñ tubaa seexul xadim jóge jéewul ànd ak lii di armée bi ko doon jël si di ndar géej fara jaari Louga kokki lañu teeri ji kokki googu ña fa egg itam lii di waxtu tisbaar waaye dañoo bëggoon a fanaan kokki doog a xëy dem biñ egsee kokki nag ni leen waa kokki teeroo dalul lii di xelum tubaab bi ñu xam ne daal kaso du kanam waaye koo ko tëjal mu xam ko boole koog ndox mi doon ñaan ngir wëgg seeni fas itam waa kokki dañ leen a tànqamlu ñu xam ne fii daal du yendukaay du fanaanukaay te lu ko mooy itam mën nañoo dal ci kaw ñu dimanche googu dañoo fanaanee dox ànd ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba ci fajarug altene gi ndax seexul xaddiim wax na ci jasaawu sàkkóor bi wax ne fajarug altene la egsi ci gaar bu lugaloo ndax fajar googu nag foofu sax lu ko jullee ba seddi altene fukki fan ñaar ci mois de août ci atu 1895 tubaab bi nekk ci gaar bu lugaloo di xaar nag saxaar gi mu war a jóge ndakaaru pour ñëw yóbbu leen ndar géej foofu lañ yendal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim xaddim ci gaar bu Louga ba ay cinq heures bi maanaam di sept heures saxaar gi ñëw waaye keroog mbooloo mu bari fekk nañ sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim foofu ci Louga loo ngir bëggoon a ànd ak moom dem Ndar géej tubaab bi nag def na ay pexe ba ñooñu demuñu ndax da leen doon wax ni yéen sëriñ bi du ngeen mën a bokk wago wu ngeen dugg yéen da ngeen di dem ci wago yu féete ginnaaw ngeen dugg ci saxaar gi yóbbaale leen sëriñ bi ñu dugal ko ci wago wi ci kanam naka te tubaab bi bu gaa yi duggee ci wago wi ci ginnaaw ñoom danañ fexe ba lonki wago dem wago yu muy yóbbu ñoom ñoo ñu bëggoon a ànd ak sëriñ bi dem ndar du leen yóbbaale kon noonu la tubaab bi def ba ba fa gaaya bëggoon a ànd ak sëriñ bi kon sëriñ bi mu ngi egg ndar altine 12 août 1895 ci bi 18 heures jàpp 19 heures jotee ndax foofu kat lu jullee lii di timis timis googu mu egg si ndar di fukki fan ak ñaar ci mois d'août ci atum 1895 ginnaaw nag bu ko tubaab bi gisee ba xam ne daal kiñ ñu doon jëli lu jëli nañ ko ba indi ko tubaab bi joxoon na ko benn liste yi ñii daal ay kilifa lañ yu nekk dëkk bii di ndar ñii ñu la jox seen tur nag ku la ci neex mën nga caa dal seexul xaddiim jël naar bu ñuy wax Mohamed Xorey Seen ab naar la woon ab interprète la woon kër googu la seexul xaddiim nekkoon waaye nag dem na ba mujj gi daal lii di xelum tubaab yi dalul ci diggante kër googu ak seexul xaddiim ndax saa su ne murid dañ fay gën di bari boole kook nag di sikkar te tubaab bi jortoon na ne daal lii bu yàggee mën naa jur la njàng mi da leen di fat kër Ahmed Khuree Sène bii nag mi ngi ci quartier bu ñuy wax soor ci ndar géej foofu seexul xaddim nekkoon ci quartier boobu di soor léegi ab école la kon école élémentaire xayaar mbeng la jamono ji kii ñuy wax Ahmed Khuree si nag Sëriñ Tuubaa seexul xaddim fekkanti wut ak moom jamono waaye nag ci diir boobu mu def ndar demoon na ca pakam ba ngir barkeelu ca barkeb jëmm jooju waaye kër Ahmed Khuree Sène la daloon bokkut ak Ahmed xaadim di dem ndar ba tey yóbbuwaat nañ ko faneen ci quartier boobu di soor fiñ ko yóbbuwaatoon ngir mu nekk fa nag am na ñu wax ne lenn ci kilifay colon yi ñoo fa dëkkoon am ñu ne déedéet foofu kay général Leclerc moom moo fa dëkkoon ci kër googu ñu ko yóbbuwaatoon ci soor waaye foofa nag ci benn magasin lañ ko daa tëj moom seexul xaadim jabaru ka nekkoon ci kër googu am médecin la woon seetlu woon na ne daal tëj gi ñuy tëj seexul xaadim moom lu ko metti la waxoon nag kii di jëkkëram di ko wax ne man mii di de doomu aadama bii ñu jàpp fii di ko tëj baaxul ci moom ndax deret ji du circuler deret ji nag dafa war di dox kon nañ ko tijji foofee ñu tëjoon seexul xadim di magasin mooy laboratoire bi gën a rëy ci ndar tey denc lii di deret ndax deret ja docteur ba tuddoon di jabaru commandant ba foofee mu ko tudde woon banque de sant bi gën a rëy ci ndar géej foofu la nekk moom mooy bërëb ba sax bàyyu seex saaliwu du moroom foofu itim daana def saa bu xëyee ñu bako mu dem daa toog ci ndar géej mooy foofu banque boobu nekk di sgbs ci ndar géej am na jàkk ju fa nekk ju ñuy wax jàkkay seng foofu sax la bind xasida gii di asiiru bërëbu ziyaar la ba nëga ni ci ndar géej ndax xaadimkat daana fa toog lu yàgg bu ñibbisee nag bu guddi jotee ñu dencaat ko ci magasin bi ci ndar googu itam la gise woon na ku ñuy wax maa Mabey Njaay mooy bi muy bind asiiru di ko wax ne dana tukki dana ñibbisi foofu itam ci ndar géej lañ ko boole woon gaynde seexul xaddim ci lool nag la sax ba le 4 septembre ci guddi ñu yóbbu ko ci benn camp militaire bu nekk ci quartier bi ñuy wax Roña Nord bi asamaan setee nag di la 5 septembre nag lañ ko indi ci gouvernance bu ndar géej ngir fas yéene ko àttee ci conseil privé boobu alxemis di le 5 septembre 1895 ci bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba ci benn salle boo xam ne nii salle fermée la àtte bi ñi koy fekkee dañ leen di segg liñ koy toppee nag mooy ku nar a nguur ndax leen lettre maam abduloo bi moom rek moo ko indi ndar géej mook sàmba lawbe penda mi wax ne daal buur fagarul danañ daani la sa nguur wala ñu ngi ci sa kaw kon bu doon jamono ji ñu ne article 80 moo dal ci kawam te article boobu jamono ji kum dal ci sa kaw du yomb lu jiitu le 5 septembre 1895 tubaab bi doon na wéy nag di bind ay lettre ndax ñim séqal projet sëriñ tubaa seexul xaddim bi da leen di rendre compte moo tax saa su ci diirub le 12 biñ tegee loxo sëriñ tubaa ni ba le 5 septembre saa su ne tubaab bi daana rendre compte lu xew ñun ko séqal bisub le 15 août ci atum 1895 gouverneur bi bindoon na lettre ci ndaw yi ko toogal ci bawal njàmbur ak lii di Louga ci pexe yiñ tëraloon ci benn fan ci mois de août ci atum 1895 ba juróom-ñeenti fan ci mois de août ci atum 1895 mooy ngir ñu teg loxo ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim pexe mooma sotti na ba tey ci le 29 août 1895 tubaab baa ngi gën di dëggal ci renseignement yim yónni woon ci bawal njàmbur ak lii di jolo fa pexe bi biñ tëraloon ngir ñu teg loxo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba tey daal am na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim léegi mi ngi ci seeni loxo le 5 septembre 1895 di bisub alxemis nag la conseil privé bi amal benn ndaje ngir àtte nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim procès verbal bi boo demee archive bu France fekk ko fa section FOM Sénégal numéro 127 bisub alxemis boobu di de septembre ci atum 1895 ci bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba gi ci bureau gouverneur boobu wala ci gouvernance bu ndar géej lañ àttee nag ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim bisub keroog ñii ñoo fekkee àtte ba wala ci teewaayu kilifa yii la ku ñuy wax monsieur Mouté moom moo nekkoon gouverneur di président ndaje ba ndax booba kat gouverneur bi fi nekkoon dañ ko doon doog a remplacer te moom mii mooy ki ko wuutu woon ñaareelu kilifa gu fekke lii di àtte ba nekkoon commissaire des colonies chef du service administratif ñetteelu doomu aadama bu fekkee àtte ba mooy ku ñuy wax boye moom na colonel la woon di commandant supérieur des troupes par intérim ñeenteelu doomu aadama bi mooy ku ñu doon wax jorket directeur de l'intérieur la woon par intérim juróomeelu nit ku fekkee àtte ba mooy ku ñuy wax clerc médecin principal la woon chef du service de santé juróom benneelu doomu aadama bu fekkee àtte ba mooy ku ñuy wax orgaret lieutenant de vaisseau woon Tuuba Marine juróom-ñaareelu doomu aadama bu fekkee àtte ba keroog bisub alxamis le 5 septembre ci atum 1895 ci conseil privé biñ amaloon ngir àtte ku baax ki Sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim mooy monsieur Béchiat conseil privé tutélaire juróom-ñetteelu doomu aadama bu fekkee àtte ba mooy ku ñuy wax monsieur Lumben conseil privé suppléant la woon superville secrétariat architif kon juróom-ñetti tubaab yi ñoo fekkee àtte bi ak seeni garde ak ku baax ki Sëriñ Tuuba ak Duudu Sekk benn maxtaar mi nekkoon entre prêtre bi bu tubaab bi laajee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim duudu sekk benn maxtaar wax ko ci wolof bu seexul xaddiim tontoo duudu sekk benn maxtaar waxaat ko ci tubaab bisub keroog àtte ba lii moo ci tukkee bi ñu noppee membre yi séqoon àtte ba itam bisub keroog kenn ku ne siñee nga ne li tukkee ci àtte bi ànd nañ ci waaye nag pexe bi mooy dañuy jël sëriñ tubaa seexul xaddiim yóbbu ko ci réew mi di Gabon ci bisub nag le 21 septembre lay jóge Sénégal balaa boobu ndar yóbbu ko ndakaaru mu doog a mën a dem foofu di gabon bu dee dem nag ci lii di ak gaal lañ koy jaarale diirub li muy nekk gabon nag weer wu jot danañ ko fay fukki dërëm ngir mu mën ci dund procès verbal bi nag moo nekkoon N1 délibération bi moo nekkoon enn 16 soo demee archive nationale lii ma la wax danga ko fa fekk atte bi bi mu jeexee ci bëccëgug le 5 septembre Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñi mu ko fanaanal nag ci guddik 5 septembre ci benn cellule bu nekk ci gouvernance mi sax murit yaa ngi koy ziyaare nekk na fa nag ab diir ci biir cellule boobu ndax kat léegi mi ngi ci kaso bi ñu denc mujj gi nag jëlee nañ ko foofu ci gouvernance bu ndar gi yóbbu ko nag fi ñuy wax toolu buur toolu buur nag mi ngi ci quartier bii di soor tool bi li ko waraloon mooy nguuruk Afrique occidentale ñoo daa def bépp gàncax goo xam ne nii daal tubaab bi gis na ko te jor ne buñ ko bayee mu amal njariñ lii di àdduna bi wala lii di Afrique foofu ci toolu buur lañ ko daa doog koo tasaare ci askan wi foofu itim seexul xaddim nekkoon na fa ngir itim di liggéey foofu sax lañ ko boole woon ak lii di gaynde gi ci tool boobu mu ngi ci quartier boobu di soor kon foofu la nekk ba le 18 septembre 1895 ñu doog ko faa jëlee nag yóbbuwaat kon ndakaaru ngir mu am fa ñetti fan ndax le 21 kat la projet bi waxoon ne ci la seexul mu war a jóge nag lépp luy territoire Sénégal kon ndakaaru dong nag la mën a jaare ndax foofu kat la bato yi nekk ginnaaw bu mu eggee ndakaaru ci guddig la 18 septembre ci atum 1895 ñetti fan la fa def guddeem gu njëkk nag ci prision bi lañ ko denc te ñaareelu fat ba nag la ku ñuy wax sëriñ Matar Binta Guèye ab lébu la woon ab jaraaf la woon moo jiite woon itam quartier bi ñu tudde siddéem ci Ndakaaru kër gi jàkkaarloo kër sëriñ bi muy fi ñu tudde di foncé kër gi ko féete soowu foofu la dëkkoon moo sàkku ci tubaab bi ngir ñu jox ko ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim mu yor ko ba keroog tubaab bi di ko génne lii di réew mi tubaab bi itam nanguloon na ko loolu kon foofu nekk ñaari fan yi ci des ba le 21 septembre ci atum 1880 quatre-vingt-quinze ginnaaw buñ jullee tisbaar ba noppi la ko tubaab bi jël si nag fa seeni ko dugal ci gaal gi ngir yóbbu ko nag ci réew mi di Gabon Seexul Xadim nekk na Gabon ba le 20 septembre ci atum 1902 mu doog faa bàyyikoo ci beneen batoom napp egsi nag ci waaxu ndakaaru yi ci bisub 11 novembre ci atum 1902 doomu soxna jaaratullaahi bi yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ci barkeem te dimbali nag lii di réew mi ci barkeem amiin mi ci barkeem amiin mi ci barkeem amiin mi ci barkeem